loolu la non mais est-ce que gis ngeen rapport boo xam ne épinglé lat xam loolu amul waa mais loolu la rek la loolu loolu loolu la foog mu a gàtt moom man moom bu ñu ma gisee léegi ñu ñëw. waaw xam naa dama wax jàmm. ça va ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw maa leen di fay. sànq gis sa altercation ak ñi nga xamante ñoo takk dee rek. waaw j'ai été arrêté tout à gis ngeen ba ñu dugal ma si oto mhm. parce que jaay doole la. après par la suite ñu bàyyi ma. lu jàngat rek lu ñu ci mën a jàngat mooy da ngeen léegi léegi ministre de boobu lu mu wax dama jàpp ne naanagul ay garabam parce que bu naanoon ay garabam moom du taxaw wax lu mu wax parce que ministre de l' intérieur organiser les élections lañ la wax soo yoon nekku ku pare ak ku parewul bu pour nga xam ku pare ku parewul waa DG bu ñu déposé liste yi ba pare di nga xam ku pare ku parewul donc ministre de l'intérieur bu taxawee ne opposition parewuñu ça veut dire que déjà ministre de l'intérieur na mu far li ñu koy waxal moom Jean Baptiste Tine na toppatoo wàllu intérêt mu xam ne ab gendarme la mu xam ne c'est un agent assermenté Ousmane Sonko sale boulot bu mu ko bëgg a def la ak Diomaye na ko bu mu ko sax jéem a def parce que nous allons rester vigilants nous serons vigilants d'abord pour les élections la la baa leneen li mooy xoqatal bu ñu commencé xoqatal la Lat Diop la démb Bah Diakhaté gis nañu notre frère Ahmed Suzanne ça ne passera pas parce que lan fii ay góor ñoo fi nekk fii ay góor ñoo fi nekk fii ay garmi ñoo fii ragal nekku fi une fois de plus parce que nag tey gis ngeen dispositif dispositif sécurité bu ñu fi teg amul kenn ku mën a taxawaalu euh, côté DIC pour soutenir LAT fu ñu ko teg pourtant ñun lañ doon wax ay dictateur lañ te pourtant ñun on a laissé la latitude on a laissé wax seen soxla ñu wax seen xalaat ñu wax lu leen neex mais tey lan jàpp nañ ne ne dañoo tëlee jàpp nañ ne mënuñu jàpp nañ ne xamuñ fu ñu jëmee réew mi pour rek ñu ñu mën a gagné législative dañ ko dañ ko dañ ko bëgg a sàcc def ko ci ay njublang def ko ci ay tappale jël ay nit nëbb leen jant loolu mooy dëgg le nag mooy je m'adresse directement à Bassirou Diomaye Faye le suppléant xaw ma la xaw ma président de la république mu xam ne dëkk bi moom lañ ko dénk moom la votel votel lañu Ousmane Sonko maintenant la dictature que Ousmane Sonko veut veut faire dans ce pays là ça ne parce que nag fii ay góor ñoo fi nekk fii ay garmi ñoo fi nekk aujourd'hui nous au niveau de la nouvelle responsabilité du président Amadou Ba tey président Amadou Ba nous a demandé de venir soutenir donc président Amadou Ba mu ngi ci ginnaaw Lat Diop tey mu ngi ci ginnaaw Lat Diop suuf mu ngi ci ginnaaw képp opposition ñoo xam ne jàpp nañ ne ñu ngi salfaane sa àq yelleen donc loolu il faut que ñu xam ko la police va ronder ils vont venir ils vont tout faire on va pas arrêter on va parler bu ñuy takk nañu takk bu ñuy jàpp nañu jàpp comprendre dañuy wax nous sommes dans un pays liber nous sommes dans bu neexee nañ dem jëli seen i seen i police yi indiwaat ko ba élection kii woo Lat Diop non dama ne non dama ne dossier a gaawee noonu parce que IGE mi yor wàllu enquête yi IGE mi yor wàllu audit yi mënuñoo def enquête nee nañ seen enquête balaa moo pare en deux mille vingt cinq la war a pare il faut le dire non non dama ne non pôle parquet final dañ koy transférer dossier te dossier mënuñ ko transférer pôle parquet final tant que audit jeexul te balaa audit jeex waa waa IGE dañoo war woo d'abord Lat Diop am ay questions yu ñu ko war pour man damaa jàpp pôle parquet financier boobu ay tappale la mbirum caaxaan la pôle financier boobu ay mbirum jaay doole la loolu mooy loolu mooy dëgg c'est du banditisme déguisé la des nag mooy nañu bàyyi Lat Diop mu ñibbi këram nañu bàyyi Ahmed Suzanne Camara parce que Ahmed Suzanne Camara lu mu mooy dëgg parce que newoon na président de la république du wax dëgg premier ministre du wax dëgg la preuve en est que président la premier ministre ira à l'assemblée le 13 mu il a dissous l'assemblée la république ak donc damaa jàpp ne tey justice dañoo war a libérer notre camarade. Lat Diop lan moo ko lan moo ko lié ak Jérôme bañ ko ba mu nekk ñaari dossier yi nga xamante ne moom lañ ko amul benn ñaareel de wax ma benn dossier bi. question bi lañ wax ak li nga xam ki nga xam moo di Jérôme. Jérôme mooy kan Jérôme Jérôme c'est un garde corps il a il pour nous tous. man Jérôme c'est mon ami et j'assume. Sniper c'est notre camarade. c'est notre garde corps il a été dans tous les combats avec ñoom ay bandi lañu woon ñoom ay délinquant lañu woon sniper à protéger la république sniper a protéger tey li ñu ko mooy lan ñun ñun ñu nekkoon ak ak moom sniper deful deful dara il faut que ñu arrêté loolu. merci beaucoup Omar. merci beaucoup. dañoo diis lan la am jàll jàll ko nii Aha. alors euh, Fary ginnaaw ban ko ban ban ban ko daaxee Omar Sow euh, dellu siwaat na dégg nga kàddu yi nga xam ni euh, yëkkati na ko jëmale ko rek ci arrestation ci convocation wu kii di euh, Lat Diop ak kàddu yi nga xam ne gis na ko euh, jëmale ko rek ci euh, nguur gi jii nan nga mën jàngatee kàddu yi nga xam ni moom Omar Sow yëkkati na ko jëmale ko rek ci nguur gi jàpp ni carrément mbirum dictature moo commencé installé wu fii ci biir réew mi waaw loolu du lu ñuy bett gis-gisam la moom Omar Sow itam dañ ko koy nangul ba mu mat sëkk ndax nit ku nekk ànd nga ak idéologie nit ku nekk itamit ànd nga ak par te moom yàlla def na ni euh, wax na fa mu far wax na itamit la nga xamante ni moo tax mu teew ndax dafay représenté ki nga xamante ni mooy Amadou Ba di leader ci euh, nouvelle responsabilité moom nag ak Lat Diop bokkoon fa ñu nekkoon di euh, militer en tout cas pour Benno Bokk Yaakaar ba yàlla def tey ñu ber seen daara nekk ci li ñu ne ba tax na rek ay kàddoom moom du doon loo xam ne bett nanu euh, yëkkati na ko nag avec véhémence yëkkati na ko nag ak doole. Mm-hmm. waaye loolu moom c'est tout à fait normal. maintenant politiquement ñoom à chaque fois la ñuy daal di xëcc débat bi mais euh, la ma wax sànq rek je pense que fi mu toll nii nañu rester dans le cadre institutionnel rek nañu rester dans le cadre judiciaire jàpp ni ab sénégalais moo daan gérer ay deniers publics sénégalais boobu noonu waa Sénégal jàpp ni peut-être jaarul yoon wala boo gis ay mbir yoo xam ne war nañ ko leeral dire que encore une fois la ñu koy toppee moo ko def ndax la nga xamante ni tey jii ni mooy dossier yooyu la amagul benn boo xamante ni neena na dëggantaan ki nga xamante ni mooy euh, d'ailleurs sax rapport yi ñuy wax rapport yi dafay wax rek juste euh, li nga xam ne gis na ko ci lu baax ak li nga xam ne gis na ko te mu nécessité ñu daal di ci waxtaan mhm. maanaam nécessité d'enquête te jamono ji phase boobu lañu ñu toll moo waral ñu woo ki di Lat Diop sànq am na si ñoom kenn koo xamante ni daal dina nangu kàddu yooyu la nee na effectivement c'est dans l'ordre normal des choses mm-hmm. ba tax na rek dañuy déglu xaar la nga xamante ni tey jii nii mooy euh, en tout cas ay euh, jeexital ci euh, bile dossier ndax nag kii di Lat bañ ko wooye ànd na ak laykatam ànd na ak ki nga xamante ni mooy maître El Hadj nekk ki nga xamante ni mooy avocat am objectif bi mooy ñëw luñ ko laaj itam mu daal di ci indi ay tontu ci bu ko mënee bu duggul tontu itam du tontu mm. waaye li la li warte wóor rek mooy fi mu ne nii accusé wuñu ko jàppuñu ko boog du moins tëjuñu ko liñ fi nekkee rek mooy audition maintenant nag à la suite de ça am na possibilité ñu daal di ko fii loolu tamit mën na ne am na possibilité ñu daal di koy bàyyi mu dem ndax démb gis nañ ki nga xam ne mooy Abdoulaye Sylla c'était le cas donc y a pas à s'emballer selon man jarul ñu koy euh, xëcc trop ci li nga xamante ni mooy vole politique bi d'autant plus que maa ngi dégg ñu naan volonté politique la parce que gis nañu ne élection yaa ngi ñëw dañu ko bëgg xañ mu bokk ci élection yi affaire yu ni mel mais ñu ngi fàttaliku rek yàggul dara kii di Ousmane Sonko élection présidentielle yi ñu wees ni dañ ko daal di tere bokk ndax euh, ba ñu demee ba à la veille des élections la ñu yëkkati ay dossiers yoo xamante ni tey jii nii tere na ko doon candidat donc brandir li nga xamante ni mooy euh, argument boobu moom pour man c'est factice parce que tout simplement yàgg nañ ko fi gis te ñoom régime bi ñu àndaloon ñoo ko fi doon tëral ñun presse bi tey sax am nañu loo xamante ni amaana daanuñ ko am ndax gars yi au moins négocier nañu ak ñun waxtaan nañu ak ñun ba ñu mën a ñëw positionné fi ñu nekk nii. mais xam nañ ne il y euh, mois ci ginnaaw neuf mois ci ginnaaw mënuñu ko woon am donc déjà loolu mbir la boo xamante ñun suñu biir.